Celui qui la fabriquera, la mère de sa grand-mère n'est pas encore née. Ouais, moi, moi Celui qui m'empêchera de venir au Sénégal, la grand-mère de sa grand-mère n'est encore née. <laughs> ma dóor ndam li nokk nangu ndam li jël réew mi téye ko samp fa soog ak jabaay <laughs> lu ma teree dugg xam ngeen ni bu ma paree sama li may def nii ba blanché sa branché samay affaire samay cotisation ak samay yama amoon dugal lépp lépp lépp bu ma toogee Sénégal sax salaire bi di dal tëll <laughs> voilà chaque deux semaines salaire bi di tëll ma ma dugal ay millions <laughs> boobaa nag bu <laughs> après mun naa may sax waay mais man na mënu ma may koy mandé rapport mandé kat moom mënu ma ko may parce que da koy loo ko maye mu mandé ko mais sinon bu ma ñëwee mënoon naa ko may weccet mu defar laay fam quoi bàyyi mandi bàyyi cagatu ay biiral taxawaalu ma may ko dara comme moom liggéeyul xëyut gontul hmm. xaaral ma dugg sama hôtel yeah ma dugg sama hôtel laa yes sir yoo xam ne ndeysaan doo xam sax lu ñuy fay waaw liggéey nekk patron ñu lay fayal hôtel nga dugg dem def benn formation de benn kii ñu xam nga de benn huit heures de temps ñu bloqué la xaalis bu laar fokkin dugal sa contre jox la hôtel xam nga nga toog chill you know Voilà. Yeah. On dit quoi tranquille waaw ba lan laa waroon naan xaar ma jël kii bi waaw Sonko ak Diomaye la yow yow Sonko ak Diomaye nekk sa hôtel bu clean sa hôtel bu xaay bàyyi ay kaas bàyyi yuuxu Euh, ba nga koy bàyyi léegi donc bàyyi ma dox benn parce que vanne française laa dooroon capu et capu i mooy robinet Ablaye Wade doon wax naan da nga naan maafe mu defal la maafe e maafe defal ma maafe ak am kànja gu bari maafe ak loon soos soos bi na ëpp na soos bi ëpp o oh, comme bu projet Ablaye Wade bu robinet maafe bii robinet maafe la defal ma nag rokk ci kànja bi kànja bi maafe waaw oh, mi ngi ñëw maafe baa ngi ñëw wala na maafe bi ñëw maafe tuuti maafe uh, ak uh, waaw ñankatang bi na gën a bëri na na ñankatang non ñankatang ñankatang ale ñankatang baa ngi ñëw ok ñankatang ñankatang ñankatang ñankatang ñankatang daana da doon sama sama sama ñankatang daana doon defal ma tuuti mag ok maafe léegi def ci soos bi ok voilà soos bi indil soos soos soos soos bi awle soos bi laa a day gën a dang ok waaw mi ngi nii day dang day dang parce que dañ bëgg a dangal soos bi na soos bi dang waaw ah, soos bi dang no ok ok ok ok ok ok c'est bon c'est donc euh, am na robinet maa fa ngeen ñànkatang bi euh, sotti nañ ko ci après baax na baax na baax na ok baax na waaw ah, yii nag ay rappeurs yu voyagé lañ ah. ay killa di voyagé dem partout dans le monde ay kilifa dem na partout dans le monde ay Simon dem na partout dans le monde ay Fumala dem na partout dans le monde ay Gaston dem na partout dans le monde ay rappeurs yu torox yoo xam ne ñi ngi Sénégal rek toog mosuñu dem mosuñu dikk rab nañ ba torox di mandi rek di mandi di mandi di ay caga di laal caga di mandi rek torox musuñu dugg ci avion ñu ngi noonu torox boo leen fekkee ca àll Pikine ga ca fond fin fond Pikine ba ña nga fa torox tott xamuñu café yi xamuñu xamuñu machine yi <laughs> ndax torox te Amadou Ba joxu leen lu nekk defal nañ ko ko publier nañ ko partagé nañ Amadou Ba mais ñu si daa metti <laughs> voilà ok c'est bon c'est bon c'est alo ana maa ngi ci kaw maa ngi maa ngi cinquième étage chambre 138 donc euh, voilà quoi naan café sama sonn ci hôtel bi nag depuis vendredi laa def sama mission par naa ci samedi ak dimanche ci kanam dama war a ñibbi donc euh, voilà man l'essentiel naa encaisse rek on s'en des hôtels là donc xaaral euh, ma dóor sama ma génnaat tuuti man mbedd mais ma gën hôtel quoi vraiment man ma génnaat parce que hôtel moom c'est la pause hein <laughs> mais c'est cool ici hein c'est calme c'est bien quoi ouais ouais c'est deux jours ouais ouais c'est ça hein ouais moi j'habite à Montréal quoi ah. ouais <laughs> ouais <laughs> ouais ouais on est cool hein La semaine dernière, c'était pour deux jours. Hein. Ah ouais. J'ai pas envie de retourner. <laughs> chez nous, hein, chez, <laughs> chez nous, c'est New York, quoi. <laughs> On aime ça là. C'est euh, vraiment. C'est presque la capitale. Hein. Yeah. I love Montreal. You know, gisoo door café gi génn naan ni ay eh, gars alors muy ci la yéen a door nag mun leen leen ñuus bañ leen tere leen yuuxu oh. Ah, ñu génn doxantuwaat man mbedd daf man neex ko man daal mbedd damay sëy ak moom quoi I love mbedd I mbedd ah ragal jigéen moo gën di wër di biiral rek de <laughs> bu ñu demee yow man xëyaam man xaw ma lu waaja wax nee man dama ragal jigéen man jigéen ñi ñoo ma bëgg <laughs> jigéen ñi bëgg mais <laughs> dama ragal yàlla ragalu ma jigéen de yàlla laa ragal yàlla yàlla laa ragal njaaloo jàpp doom jàmbur yi di biiral rek yàlla na ma ci yàlla musal picc bi lakk ci taat nag day bëgg morom biiral biiral biiral biiral ba pare nii di toog seen am am laay fi sat wecc incorruptible biiraluñ kenn nga ne force da wëral jigéen boo biiral non non non non non non <laughs> man jigéen yee xëccoo parce que bëgg nañ góor bu mel ni man du tox du naan du màndi biiralul kenn amul doomu biiral <laughs> jigéen ñi ñoo bëggal seen bopp <laughs> ñun kay ñoo leen di dalal ko ci ñëw mbëggeel ñu dalal la barke alxuraan amul bés bu romb te jigéen du ñëw doxaan mais eh, dañu leen di dalal parce que suñu sœur lañ du leen foowee du leen saax jigéen yëpp am bëgg nañ am góor gu mel ni man liggéeykat jàmbaar yor xaalisam ñeewul kenn du cogg du jàgg du tàllal loxo <laughs> you know di xeexal réewam manqué wul dara amul lu góor am lu ma manqué dara dara dara sant yàlla rek sant yàlla rek jigéen bëgg nañ góor yu baax waay waaye sulaar moom cagabaar mbër di màndi rek <laughs> ak a biir a laate moom yàlla nañ ci yàlla musal te muccal ñu ci yooyu kon nag Sonko ak Diomaye daal RAS amul lenn lu ñuy wax lépp ngi nice gars yi waaw incha allah bu ñu rajaxee assemblée bi assemblée de traître bii nga xam ni loi ak règlement yuy rey sénégalais yëpp voté nañ ko fi ñëpp gis nañ ko bés bu ñu leen rajaxee jëlee leen fi teg fi ay député yu gore yu garmi yu dëggu yu bëgg seen askan bu boobaa di ngeen dégg ñu voté fa ay projet de loi yoo xam ni pour yéen kese la pour yéen kese lépp yéen lay intéressé bu boobaa ngeen xam ni dëgg mooy dëgg lépp lu ci ginnaaw dëgg ay caaxaan la voilà